foo am kenn amul droit dugg fa yow la ak dama lan neex Assane Diam ñu ngi lay nuyu di la euh, ñu ngi lay fay. ba pare yan sentiment nga am quoi. bon euh, sentiment de contentement la ñu am ndaxte defe naa ni à chaque fois bu ñu ñëwee accomplir suñu devoir citoyen maanaam le le devoir le devoir de vote bu nga xamante ne moom la ñëw di def donc li ñu ci am contentement li ñu ci am euh, mbégte ndaxte lii rek carte kese moo mën a tax yow maanaam li nga bëgg ci dëkk bi mu mën a donc chaque fois bu ñuy voté c'est avec un plaisir ndaxte foog naa ni politique moom proposition là ku nek da ngay def proposition et puis maintenant population bi ñun choisir maintenant je pense que tay euh, ñun en tant que ay responsable euh, politique nek comme biir commune bi suñu rôle moy vraiment joxe le bon exemple par rapport ce que devoir citoyen citoyens, voter, et puis dans la toute la discrétion possible donc nous euh, rafetlu aussi dispositif nous aussi tamit parce que nous fi bien manquement parce que aussi en même temps nous sommes candidats candidat aussi nekk aussi plein de potentiel. Nous vérifions aussi est-ce que tout va bien le matériel bien, nous ndax en place et tout jaaroon nañ fi si suba encore singon, donc vraiment amuñu avons benn euh, signalement amuñu benn incident bu ñu tamit vraiment nous rafetlu vraiment l'organisation des des élections donc c'est une première pour nous mais vraiment vraiment euh, am nañ si mbégte a contentement bu baax a baax a baax. nan nit ñi a a génn bon je pense que tamit euh, chacun chacun a ses habitudes ah aussi ni am ses habitudes quoi ni ni teel a ni ñii bon voilà et puis dimanche aussi y instant bi mën naa comprendre ni bon bëri na bëri na ay ay ay soxna yu nga xamante ne ñoo voté si des fois fu ñu ñu defar kër yi donc ba pare donc c'est c'est tout à fait compréhensible Hein. donc voilà donc euh, mais lu peu importance rek moy nit ñi nañ ñëw nañ nañ voté en masse choisir vraiment sen député sen ay député donc et puis bon voilà le reste euh, voilà ça ça c'est nekk ak nu muy nu muy defee politique ak la moo ko tax donc bu fekkee tey yow man sama cas sama commune moo ma tax a jóg commune de Hann Bel-Air moo ma tax a jóg donc mënu ma comprendre tey ma bëgg Hann bel bëgg Yarax ba pare di nekk di nekk si ay coalition yu nga xamante ne leer na ma ni ñi nekk ñu fi pour Hann Bel-Air man loolu loolu loolu moom loolu moom gën a ma demal sama yëfu bopp parce que tey mënu ma comprendre ñuy xeex fi benn système ay nit benn équipe bu fi nekk pendant des années gis nañ ils ont eu des députés dem nañ assemblée nationale demati fa ak ñeneen ak ñeneen mosuñu fa dégg ku fa yëkkati kaddu kaddu Hann Bel-Air fa dégg ku fa yëkkati problème le problème de la baie de Hann gis ku fa yëkkati le problème de l' employabilité des yooyu noonu yëpp waxuñu si. donc bis jot rek dégg élection rek bëgg forcer ñëw jël la la voix des populations pour dem assemblée nationale pour man lolu c'est insensé nit boy politique da ngay politique ci ben vision da ngay politique ci ben bëgg-bëgg nga am un objectif moy vraiment satisfaire sa population Té man sama population moo ma tax donc motax ma ma demal sama bop. campagne bi euh boko boko na ci ñiko ko doon couvrir mais masse bi la top. Lolu noko expliquer euh, <laughs> bon lolu mën nañ mën nañ mën nañ japp ni. euh euh, ñu. te gars tamit kenn joxu leen waaw non non non non non non non loolu moom vraiment bokkul suñu pratique bokkul suñu pratique man damay demain saluer vraiment di remercier aussi les militants surtout la jeunesse. parce que ndaxte tey am aujourd'hui une population bu comprendre bu comprendre que c'est-à-dire intérêt intérêt Hann Bel-Air intérêt commune bi intérêt Yarax mom moy primer sur tes intérêts personnels. parce que mën la jox quinze mille cinquante mille nga jël ko sa poche et puis bon diana si sa bop la yam mais bo gisé kuy defar dëkk bi donc j'en profite pour signaler hein. donc on fait partie des des gens qui vont xamante ne de ñu rek laaj fait bi qu'on a fait donc aussi bëgg aussi relever aussi le niveau de la commune de Hann Dans La commune Hann nous sommes à un niveau très très très très bas donc beaucoup nañ communes commune yu nga le euh, département de Dakar je pense que si c'est pas la première ça doit être la deuxième commune la plus riche en termes de revenus mais en termes de pauvreté en termes de cadre de vie moy commune bu nga xamante mo gëna de te loolu man je ne peux pas le comprendre ay société ñoo ñu wër ay entreprises yu dul jeex am nañ bi am beaucoup de patrimoine am beaucoup de ressources waaye tey doomu yaraax yi ñoo gën a sonn kuy sonn alors que loolu c'est pas normal. yaa ngi wootee doomu yaraax doomu yaraax mais am na ñu lay jiñ ne yow da koo yaraax. bon euh, xëy na peut-être ñoom xamuñu fan moo yaraax ah bu fekkee euh, je pense que Hann Marinas bokkul yaraax aussi donc ni ñu ko wax donc ni ñu si génnee ni ñu si génnee yeneen kii yëpp ah yaraax bu ku bëgg xam yaraax da ngay xam l'historique xam la mo fi nekkoon tu vois man fi la judo Hann Madanaass bi la judo fooyee ci mbaali comme xale yëpp football fii euh, defi sama lépp defi sama enfance et tout ça là jang ak liggéey motax ma génn Sénégal mais voilà motax ma motax ma génn ma génn ma génn an mais euh, je suis un je suis un natif de an ken gën mo fi légitime tu vois loolu nak bon tu sais aussi les les les les opposants les les euh, ses rivales ñom souvent dañuy profiter si ay affaire bon je sais pas ay waxi yu sew pour djem la yak pour djem la discréditer man je peux bien comprendre nga indi argument yu nga xamantene man nga man nga man nga ma nga ma si man nga ma si euh, décrédibiliser mais pas ay dëkkul yara ak affaire pour man lolu c'est c'est vraiment des faux débats donc nit ñi xam nañu population bi comme nous ma wax rek kenn mënu leen lëree ku ma seet si man sama kër nga may fekk amul kenn ku may jox rendez-vous sama bureau wala fenen da ngay ñëw ba sama biir kër nga fëgg sama buntu kër ñu tijjil la waaw doomu yaraax man jamono bu may juddoo yaraax di màggee si mbaal yi si ñoom si si si mbaalu ñoom ñoom Baye Mbaye Sarr ñoom Mor Assou Ngom suñu kër li ñu doon denc seen ay matériel man benn jour dama la dégg nga a caas sa caas moom ku dëkkul yara du ko xam. doo ko xam ñu suñu kër ma la ñun bu ñuy bu ñuy mbaal fii c'est-à-dire jamono yooyu si woo ndox si woo jën lañ doon def maanaam da ngay da ngay jox leen si ndox ñu jox la si woo looloo fi xewoon jamono yooyu jën ñoo mën a trop donc melul kom melul comme tey donc voilà donc pour moi, c'est un faux débat en tout cas euh, le plus important dans la vie pour qui est commune de Bel-Air pas des débats de bas étage Nous plan vision kan projet pour anne bel un point un trait que nga que plan et puis def proposer on a des échantillons ici.